d' abord li ñu njëkk a lu ñun mooy dem police bi ñu constaté ak gendarmerie diggante nguur gi ak jàngalekat yi loolu lu ñu naqarlu la bu dee dem police ak gendarmerie rek la ñu war a yóbbu ay nit am na ñu fa war a yóbbu am na ay directeurs généraux ak ay ministres yu of OFNAC ak IGE jàpp ci xaalis bu ñu luubal directeur général post ci la bokk directeur COUD yéen ñëpp dégg ngeen ko ñooñu duñ leen yóbbu police ñooñu lañu ñu war a yóbbu police. du enseignants yi nga xam ni c'est des gens respectables et respectés di def seen liggéey ni mu war te nguur gi yoral leen li ñuy laaj enseignants yi laaj ñu xaalis bor bu leen nguur gi yoroon te Macky Sall jëloon engagement dina leen ko fay loolu la ñuy laaj nee na mënu ko ndax yorul xaalis moo leen jox temps day nee na day créer benn institution au conseil des collectivités territoriales te loom ci nar a dugal ci xaalis mat na neuf wala dix milliards. donc njàng mi yitteelu ko te Mandela laa daroon wax ni l'arme la plus puissante pour un pays kii veut se développer c'est l'éducation bu njàng mi yàqoo jarultul ñuy dem ci beneen secteur lépp day yàqu donc yàq na njàng mi li ko yitteel mooy nan lay fexe ba falu 2019 amaat beneen mandat ak njabootam donc njàng mi ak njàngale mi aussi na parents d'élèves yi ak askan yëpp xam ni du affaire enseignants yi rek c'est une question de responsabilité ñëpp la yitteel. bu yàqoo ñëpp njàngu xale yi yàqu éducation yi yàqu donc na si jëpp jóg wax si nguur doole bu la ko yàlla denkee da ngay jiital waxtaan ak ay ndaje pour régler problème yi mais du jaay doole ak fët-fët mooy régler problème encore une fois nous lançons un appel au gouvernement mu waxtaan ak enseignants yi pour ñu trouver une solution à l'amiable